Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf jël leen sàkk yi wekkoo jël yoonu lekkool yi te jàngi ndax at mu ga sax di année blanche gi ñëpp di ragal ci réew mi du am ubbil la soleil Ibrahima Sall di jëwrin gi amee njàng mi moo ko wax ci gémmiñu boppam ministre bi di xam le ne lekkool la mu baaxoo mooy ci weeru suwe gu ca nekk gën koo yàgg bu weer way jeex lekkool di tëj ci yoon nag sant nañu jàngalekat yi ngir ñu dem ci l'école yi jàngale ba njeextal weeru sulet bu ko defee bu l'école di tëj ci ndoxteel weeru ut gi lay doon examen certificat yi ñu dàq ko ci benn semaine examen BFEM yi ñu def ko ñaari session benn privé benn domaine public buñ ca noppee nag lii di baccalauréat bi ñu càmbar ana ci yeen anam la koy organiser Sud Quotidien nañu ministre éducation waxi année blanche ci boppam lay bañ a dégg ci tës tës gu mitti la nekk ngir wàllu élèves yi loolee tax na mu joyandi bu baax lii di calendrier scolaire bi Walf Fadjri nañu na mu koy doxalee moo di examen BFEM yi ñaari examen lay doon benn privé gi benn public bi ba ca njëkk ci weeru août la koy def ba ca des ci weeru novembre journal bi nañu waaye pexem yooye muy tekk moom ministre bi ngir mën a wàllu njàng mi coow dañoo gis ne ministre bi dafay beral loxo njàngaleem privé gi ministre Ibrahima Sall ak pexe yi mu bëgg a teg ngir xeetali l'école bi populaire tudde ko plan de Sowétas ñi war a santaat yàlla mi leen sowe démb mooy ñene woon ca bato Aline Sitoé Diatta bato bu càng démb la ko gis observateur nañu bato bii di Aline Sitoé Diatta ña ko jëloon jugee Ndakaaru jëm si Gicoor yàlla baax ne kon du baax ci ñoom ndax bato bi day daw ba mu yàgg ndekete fa mu toll ndox ma amul doole suuf sa jege na ko xandal yi nekk ci suufu bato bi ci suuf bato bi demul dikkul soldat lu ko mooy lambaay dina ñaaw populaire nañu ñane woon ca bato ba ba ñu toogee ba mu yàgg dégg bato bi ne kàkk demul dikkul lu dul taxaw di gurguri ñoom ñëpp seen xel ca bato la joolaa la dem ñu dem ca tribunalub Thiès ànd ak yéenekaay yi fa xëy dem ak taalibe Cheikh Béthio Thioune ya fa demoon démb mu di cantaakon ya Le Quotidien ñu démb janoo nañu ak àttekat bi waaye cantaakon yooyee fanweer ak ñett ci ñoom la procureur ba di sàkko moo di ku ca nekk ci ñoom ñu tëj la benn atu kaso ki ci bi di Barthélémy Diaz populaire di laaj ndax du génn ci kaso bi dellu Ndiassane muy ca këram ga ndax ay awokaam maanaam jamono ji ci pexe wutal ko liberté provisoire ci la ñu nekk ci observateur Jack Bauer di Barthélémy Dias di fa xamle ne keroog ca fetalante ga woon ca Far West di mairie bu Mermoz Sacré-Cœur ba neru bii di Ndiaga Diouf ñàkk ca bakkanam moom Barthélémy Dias nangu na ne bisub keroog ma nga woon ak fetal waaye rey ci woon kenn kenn ci garde corps yi Abdoulaye yi di waa ji ñu naan Abdoulaye Diène yéenekaay bi nañu siis bi woolu na ko ngir dugal ko ci na ñaar ñoo xamante ne ci bokk nañu ci mujje woon ca palais ba Macky Sall door na ko fa ubbil le quotidien journal bi nañu weer rek ba mu defee prestation de serment ak léegi waaye Macky Sall tànki Abdoulaye Wade dëgg la topp fukki conseiller ak juróom-ñaar Macky Sall tabbu na leen te ku ca nekk ci ñoom ci rub ministre la amee la jabari Abdou Diouf defoon jabari Abdoulaye Wade def ko di ku ca nekk ci ñoom di taxawal ay fondation ki association jabari makki Sall moom it jug na jaar ca ndax Marième Faye Sall jabari Macky Sall taxawal na fondation boppam libération nañu fondation boobee lépp lu ngeen ci bëgg xam maa leen ko cay wax servir le Sénégal di Alioune Fall ak Moustapha Diakhaté ak Penda Mbow ñoo yëre yëf yi di ko doxal projet ba benn waay bu ñu naan Christophe Aubran moo ko jiite ki jiitu ci lamb ji mi ngi ci sunu lamb muy Balla Gaye 2 Triple Less doomi Double Less ci xët mu njëkk sunu lamb Balla Gaye 2 di fa xam le ne ngir mu bëre ak Eumeu Sène faaw des koy fay lu ëpp téeméeri million ak juróom fukk maanaam 150 millions Balla Gaye 2 ne loolee lay laaj ngir mën a bëre ak kii di Eumeu Sène Triple Less doomi Double Less yamu ca ndax nee na bëgg-bëggam ak yéenam moo di fexe ba doon mbër mi njëkk laal ñaari téeméeri million combat Macky Sall njiitu réew mi moo di saa yu xëyee di xooli pexe yu jëmale dundinu askan wi kanam jànq mbedd yi di jigéen ñiy jaay seen bopp ñoo nga yëgloo nee nañu mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk ubbil wal fajri grand place la ñu fa xamle di doléance yi ñu jëmee ci njiitu réew mi Macky moo di ñoom jànq mbedd yi amuñu salaire ba ñu leen di yokkal ay impôt ak di leen ko wàññil la ñu bëgg ci Macky Sall mu dimbale leen ci moo di góor ñi ñu koy séqal na ba góor ñooñee la ñu leen di fay bu mu wàññeeku jànq mbedd yi amuñu ca ne bëgg nañu mu góorgóorlu dimbale di préserver participatif bañ a ñàkkati ci réew mi master office VDN moo leen doon may